jamono ji mën nañu wax ni lépp nag yemb na liste yi génn na départemental wala municipal ñeel élection 23 janvier bu dee département de Mbacké wala commune bu Mbacké boo ñëwee fii si préfecture état major yëpp jóg nañu ngir nag xool si seen i liste ñenn ñun si jox kàddu ñu si mel ni Khadim Tall moom mi ngi bokk wàllu Sénégal am na mbetteel si liste yi ni ñu ko doxalee ñoom seen biir coalition. gis nañ lu ñu bett loo xam ne fooguñu woon ne liste nii lay demee ndax niñ ko faral di parti suñ ko seqee lu ci bari dañoo war waxtaan. mais waxtaan yooyu amul. ne loolu ñëpp umpale wuñ ne ci département bi lu manqué la ci parti démocratique sénégale ak ci coalition bi nga xam ne muy coalition wàllu ci la ñu demee élection yi. Euh, ba bi euh, investiture yi ñëwee ñu bari porté woon nañu suñu candidature doon ci jàpp yaakaar naa yow ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci département bi xam nañ ci lu bëree bari ñoo xam ne ñu bari pare woon nañ pour jàpp ñu ci élection locale yi mais bi partie bi tracé nag euh, ñun li ñu waroon def nañ ko mooy wax nañ ñëw dem Kër Sëñ Cheikh liggéey ak moom ci liste yi biñ ñëwee aussi lañ doon def loo def nañ ko mooy déclaration individuelle yi ñu doon bind bind nañ yëpp. Euh, jox ko mais bi ñu ñëwee ni ñu gis ñu classé liste bi ñun lu ñu bett la loo xam ne lu ñu jaaxal la xam naa jommul ci fan yi di ñëw dina gisee ak ñi nga xam ne ñoom laa seqal di liggéey ci département bi ñu xool yan taxawaay la ñuy am ci élection yi nga xam ne moom suñ kanam. bu dee nag euh, Bamba Ndiaye moom bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar gis na ni kat lépp yemb na ndaxte nag jàpp na ni ku tànn foog nga bàyyi. donc appréciation ci liste yi de moom liste euh, coalition Benno Bokk Yaakaar jàpp naa ne liste bi ndax bañ koy def consulté nañu responsable yi nga xam ne maanaam ñoo nekk APR consulté nañu parti allié yi nga xam ne tamit ñooy jàppale eh, le président son excellence Macky Sall te boo doo boo xoolee ñoom ñëpp maanaam ñu ngi ci liste bi toutes les communes aussi qui sont dans le département l' ensemble des seize communes qui dans le département de Mbacké sont représentées dans cette liste mais aussi bu ñu fàtte ni tamit choisir c'est éliminé waaye nag jàpp naa ni liste bi nekk na liste boo xam ni ñi ci waroon dugg ñëpp maanaam dugg nañ ci te incha allah rabi dinañ battre campagne. liste moom ku ko def am ñu mer. Hmm. liste moom parce que tamit déggoo ma wax rek ku tànn ku tànn yaa bàyyi. te ko bàyyi mu mer loolu àdduna moom fii ba àdduna tukki noonu lay doxee ñi ñu tànnul moom foog mu am ñoo xam ne danañu mer mais ñi ci mer ak ñëpp dañuy dem waxtaan ak ñoom rek te xam ne lépp dañ koo def ngir njëriñu parti bi rek. ñu nag wéyandi di xaar appréciation yi ñoom seen biir parti wala coalition nu nu gisee liste yu nu mel gën na di fàttali le 12 novembre 2021 bi quinze heures jotee ci préfecture bu Mbacké yi.